dikkati naa temps fu ndobbin rey sa maam day foo séenee lu ñuul da ngay daal di daw ci saa si bés bi le jour daal di may xamal ni moo taxit nguur gaa ngi ñàlli fas yéene dajale ay bagage sam ba dara du ko bett yéene kaay bi ne ma mobiliser nañu force de sécurité yi ngir nag fas yéene auditionné Ousmane Sonko maître Bamba Cissé kenn ci awakaam ci libération yéene kaay di ko dëggal ne Ousmane Sonko su amul coppite day ñetti fan ci weeru novembre gii war nañ ko auditionné source leen juum même su nekkee ni magistrat instructeur bi di maam Diallo day ñibbisi na ci réew mi ci voyage bi mu nekkoon démb démb ci guddi xaaja guddi sax moom Ousmane Sonko kenn convoqué kew ko maître Bamba Cissé kenn ci awokaam ci libération yéen kaay na déet Ousmane kay woo nañu ko laaj ba mooy dañ cay deltu ginnaaw am déet waaye Ousmane Sonko woolu nañ ko ñetti fan ci weeru novembre gii alxamis tribune yéen kaay ne ak gendarme yi day ñi ngi ci état d'alerte saa si tembe Walf Quotidien ne ko mooy yow ay permission ci boppam jébbalewuñ ko saa si tembe ngir waajal lii critique yéen kaay ko takk der yi day saa si ci état d'alerte ci boppam la ñu nekk ñoom ñëpp la ñu xamal ne toog leen te xaar ndigal bés bi le jour daal di xam le ni àllarba ji la troupe yépp di dem seeni base te juge bi nag bu dégloo Ousmane Sonko ba nuppi daal di sàkku ab jugement daal di koy renvoyé moom Ousmane Sonko nag mën nañ koo yóbbu kaso ci mandat de dépôt turbine yéen kaay ne ñaara am de ñaar moo di nag ñu déglu Ousmane Sonko ba nuppi xam ne mbir mi nag ab complot dong la dara ta taxew ci daal di def non lieu setal ko wecc bàyyi ko mu ñibbi këram wa ilaa yéen kaay bi dee média bi ne ma ña nga jëm nag ci procès ci la gën a jege de ab procès atte boo xam ne Ousmane Sonko ki ñooñam moom la ñu bëgg waaye tam Adji Sarr moom la bëgg yéenekaay bi dama kuy wër ko mu fanaan kuy wër ku leen wéttali tëjal buntu bi waru leen boole yéenekaay bi dee média bi dama waaye Ousmane Sonko du ca wedde lu toll ci fukk ak ñaar ci avocat fas nañ ko yéen a défendre l'observateur ne ma këyit gi nga xam ni moom lan loon commandant yi lan moo tax mu daal dina fàng ci place publique bi commissaire Kaytaane la ma doon wax rek saa si tembe daal Sénégal moo nekk ci danger les écoles yéenekaay ne ma loo ci manti déggi diggante Ousmane Sonko leer gu mu leer ndax juge ba ci boppam léegi mu déglu Ousmane Sonko libération yéen a kaay ne ma ay awokaam bëgguñu mu déglu Sonko kese de sàkku nan nag mu déglu MC Niass sàkku nañ mu déglu Mamour Diallo waaye tam sàkku nañ mu déglu madame Tall mi nga xam ne tudd nañ ko ci coow li cey coowal Ousmane Sonko aji saar li turbine yéen a kaay ne ma jur na ab xeexoo de xeexoo bu métti ca cikki ca nemmeeku tuur ga turu aji saar la daal di jor ay gros bras Sonko dóor ko ban koy toggali xewer vox populi daal di élément yéen a ne ko ak itam kër yu ñu taal maître Abdoulaye tiin ci vox populi daal di xam le ni ñun kay la ñu daal di tegal am ndëgg sërëx ñu daal di cay tàbbi Mamadou Ndione maire bu jaste ay nervi Sonko ñoo leen attaqué bés bi le jour daal di xam le ni mbaadu nag nemmeeku tuur bi duñ ko mujjee arrêté l'évidence yéen a kaay daal di jox kàddu Amadou Mokhtar Ndiaye mu xam le ni moom ci boppam mooy dakkal nemmeeku tuur bu Ousmane Sonko li secrétaire général national bu PRC parti républicain ak citoyen xam le na ni nemmeeku tuur bi dina ko dakkal Amadou Mokhtar Ndiaye daal di xam le ni Ousmane Sonko ci boppam du référence ndax waxtu wu nga xam ne maire bu nee nga toog sab localité di xool lu koy jëmale kanam moom Ousmane Sonko ma ngay wër réew mi di wax askan wi lu amut di leen manipuler waa ji ne ko waa yow lan moo tax nag nga jàpp ne président Macky Sall mën na sampaat ndëndëm ngir ñetteel bi mandat Amadou Matar Ndiaye ne jëf ji mu jëfal Sénégal gii dem ba 2035 dong moo koy daal di matale Cheikh Omar Anti Vox Populi ne président Macky Sall constitution bu Sénégal moo ko may mu sampaat ndëndëm nekk candidat am déet ñun ci boppam ñoo ko def candidat Marlene Ndoye ci l'indépendant yéen a kaay ne président Macky Sall dafa war a doon candidat Sud daal di jox kàddu professeur Mamadou Diouf muy xam leen ni nag président Macky Sall day buñ ko jayee ba mu sampati ndëndëm dootu ko defati résultat législative yi ñu génn rek war naa doy xel président Macky Sall waxuma la constitution bu réewum Sénégal Sénégal nag président Macky Sall bu fi jéemee ñetteel bi mandat dina ko dugal ci guuta goo xam ni maar day taali Abdoul Mbaye ci réew mi Quotidien daal di xam leen ni Sénégal ci boppam dëgg-dëgg ñoo war a xool ñan la ñuy tabb teg leen nag ci bopp réew ñuy doxal Dieynaba Diatta responsable APR Grand Dakar daal di woo président Macky Sall ne ko président gestul say ndaw ca Grand Dakar Dieynaba ni ko 2008 ak tey ñun say goney parti fii ci Grand Dakar ñu ngi souffrir te saa booy tabb nag fàtte ñu ngir ñu financé sax dañuy daw si ginnaaw financement yi Dieynaba ne ko sonn nan de nag waaye sonn nañ l'indépendant ne ko syndicat kat daara yu kaw yi day tàmbali nañoo xaddi ñoom ci boppam ne ñu soobu nañu ci grève waxtu woowu jàngalekat yi nekk ci mouvement national des enseignants républicains amalug lël fii ci Dakar ndakaaru ci teewaayu ministre conseiller El Hadji Malick Luc Sarr Maïmouna Sissoko Khouma ak ay délégué yu bokk ci fukk ak ñeenti diiwaan ci réewum Sénégal daje gaa yi waxtaanee nu ñu mën a jàppalee parti bi jaaree ko nag ci seen biir kuréel waaye tam ñoŋal njàngale mi may mun a Sissoko Khouma daal di rafetlu président Macky Sall na mu joxee gëdd système u njàng mi waaye tam mouvement bi lu bu baax a baax président Macky Sall ak doxalinam ak jàngalekat yi waaye tam système éducatif bi gaa yi ne koppar gu takku la président Macky Sall génn ngir ñoŋal waaye tam joyanti jàng bi ci réew réewum Sénégal des enseignants républicains di ko rafetlu xam leen ni nag ñi ngi teew ci fukk ak ñeenti gox yi ci réewum Sénégal fas yéene doxal le vrai journal daal di may xamal ne boobu day code des marchés ci boppam ma ngay souffrir ay réforme yoo xam ne la ca suuf lees waxuta ñu soppi nag ñaar yoon 2014 ak 2022 yenn ciy code Birahim Seck daal di jàpp ne bii ñu soppi ci 2022 bi moom moo di nag ne entreprise yi dem leen ngeen tibb ngeen sàcc turbine yéen a moom sampub laaj diggante Frank Timis Ovidou Tender Diop Ayuk Eyon Petit Boudé expliquer moom président Macky Sall lan moo tax nag buy lonkool ñu doy waar lay lonkool le soleil yéen kaay ne boobu day léegi ñu tàbbi ci jeux olympiques de la jeunesse bu 2026 bi nekk nag ci waxtaan yoo xam ni maar day taali direct news daal di ñëw ci fédération sénégalaise bu football bi nga xam ne day saax saaxee dafa mel ni alalu askan wi club yi nekk ci torox tànge nekk ci tumranke bu doy waar waxtu woowu ñoom ci boppam waa fédération bi di dégg thank you direct news ne ma fii ci Sénégal ban club ngay gis rek mu jënd fi ci ndëg bu ko jar yaabe ñoom ñi nekk ci kaw fédération bi libération ne Sénégal day lu ne am na fi douane bi cib cartel la daal di dal lu toll ci ñetti téeméeri kilogramme bu cocaïne lan daal di teg loxo ñaar fukk ak ñeenti milliards ci njëg buñ ko xayma les ko yéene kaay ma ab sandarme day moo daal di xaru ca Tiwaawoon pël la daal di amee wax ji wax ji mooy dafa feebaroon te mi ngi doon defi traitement ngir nag dakkal ab souffrance moo tax sandarme bii daal di faat boppam ak lu mën a am mbokk yi nan ñaan jàmm tey nekk ci jàmm Mantoulaye Thioub Ndoye merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal ci revue de presse bi dina dellu si à 13h incha allah ànd ceeg El Hadji Mansour Diop.